marhaban marhaban tey nag ñu am ndaanaan loo xamante ni nii ci wàllu football def na fi jaloore lu ne wax dëgg yàlla marqué empreinte ci lii nga xamante ni nii mooy taarixu football euh, salaam maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi lay ah, fay. yaa ngi may fay. baa yaa ngi am jàmm. ma ma xabaar na tey la mel. d'accord alhamdulilah tey nag ñu am fi gan gi nga xamante ne nii mooy Mouhamed Salah bi koo xamante ne nii wax naa ko léegi léegi waaye ñun dafa am loo xamante ne nii danoo doon danoo jaaxal mais sa sa diggante Sadio Mané lan moo xew. lu xew lu xew. waaw ñun kat dañoo seetlu ni wax dëgg yàlla ba Sadio Mané jëlee Ballon d'Or ba léegi wax dëgg yàlla rëy nga rëy bu tax nga naan ko félicitation te dégg yow dégg naa ci coulisse yi nga ko waxee fekk ah mais am na ci loo xam ne xaar nañ ko ci wax dëgg yàlla xaar seen Afrique ñu ngi xaar wax nga lonku Sadio Mané kaf moom réew ak moom ñu wut na Ballon d'Or bi jël wax dëgg yàlla seet na sa xol bi. xaju fii parce que xol bi moo tuuti xaju ci. <laughs> xool mu tuuti ba xaju ci nit ki doon na bu li nga doon xam mënu ma ko xaju ci. sa xol bu tuutee. lu rëy xaju ci te loolu wax bu rey la. da d'accord am problème ba léegi mën na passe ci autre chose ba it ñu am beneen seetlu wax dëgg yàlla yow Sadio Mané yéen a bokk fi ngeen di football wax dëgg yàlla ñu jëlandoo loolu fa mais lan moo tax ba léegi yoon boo jekkoo bal nga war a passe Sadio doo ko passe luy problème bi. man tànk bi gudd lay xool bu gàtt duma ko xool te moom tànkam dafa cëkk man li ma gën a jege lay passe. du ma ko nekk ne mu nekk fële ci ajak jëg ma nekk ci ajak jug di ko jax ci jag ba ok ok ba tey mënoon dem ci autre chose ba tey ñu gis nga sëñ ah, Mouhamed Salah moo toog waaye ñu am tey wax dëgg yàlla loo xamante ni moo war a xew tey insha allahu rabbi di qualification coupe du monde yi yàlla def première partie bi di wàllu Afrique tey bu yàlla defee si yow ak ñoom Sadio Mané ngeen daje sa réaction lay doon. boobaa doom ndey du neex doom ndey doom nay doom neex ndeyam neex doom neex ndeyam parce que li ma metti yëpp fa laa ko mun defee. yow mii waaw man dama am lu ma metti waaw wax naa la ko metti ma metti mooy man maa mënul man maa mënul man daal man xaw ma leen la man Sadio man li muy def lay. yow Sadio la metti wala wax sama wujju la. mu jeex sama wujj la gisoo ma benn wujj bu bëgg wujjam dañuy maslaa rek waaye ku nekk li nga bëgg nga bëgg. kon yow bu ma la déggee wax dëgg yàlla mënoo mënoo supporter Sadio Mané. lay walee man man man daal dama bëgg fente yàlla daf ma yar suma papa al imam le te nee na nit ni nga mel nga war a wane man maa ko suma xol moo tuuti mënu ko supporter. yow daal yaa mënu supporter Sadio wax dëgg yàlla mënoo jël leen ci Sadio Mané. sama wujj la. ma tamit xam ma jaaxal. mais maillot bi nga sol xanaa da nga koo jaawale. benn maillot sol. ko may jaawale. xale baana wuule tarka la ma sawul wuna albarakal kii moo bon man may fa ba Liverpool nga ne dama jaawale maillot bi. bu fekkee da wax dëgg yàlla booy sol sama yaa nga a sol. sama maillot laa sol mais sama sol sama maillot sol. sama nga Liverpool xam nga li nga war a wax léeg dugal ne ba doyel ne dem pays ma toog ne dem Milan AC wala moo dem eh, Barça non loolu moom alhamdulilah rabbil alamin ndax su ma juumul wax li nga xamante équipe boobu nga xam ne moo Real wax dëgg yàlla soxla nañ ko yéen na ngelewam nangu moo ma tere siw rek na ngelewam nangu yow fun funta ni nee nga sew Sadio Mané dem Real bu demee Real wala Barça wax dëgg yàlla bu ma doon def benn def ñaar bu ma doon def ñaar def ñeent Sadio bu ma xañ teranga dafa war a dem yàgg na fi lool ay tànk yu weex rek benn bu ñuul rax leen waaw d'accord mais dama yàgg ne équipe bi on on onze heures la non ñuy fubal ci terrain bi. waaw ñëpp tànk yu weex la man naar la ñeneen tubaab la moo ñëw rax ñu ñuul. waaye bu fekkee dafa rax lu ñuul tamit di wane boppam itam dama yaakaar loolu ndimbali équipe bi la. dama ne man maa ko mën a supporter. su ma xol bi moo tuuti. d'accord félicitation xaju ci dafa tuuti. waaye dama yaakaar nit ki at loo ko ma ñàkk ma ñàkk bañ a supporté. nit ki at loo ko bëggul. nit ki at loo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg ko séq ak moom nii dama yaakaar ni doo ko def ak moom. mais yow bii Liverpool moo mooy suñu ma yow. yëgul li xew. leen moo xew xanaa nekkatuma Liverpool te. yow Liverpool nga ne. waaw Sadio laay mënul supporté. supporté suma xol moo ko nanguwul. yow mënoo supporté Sadio Mané waaye dafa mel ni wax dëgg yàlla sa jëmmi ji ki mënu cee génnee Sadio Mané. lu tax. wala bi sa yëre bi xool. البتي السمير اللي كان يقبل باقي البتي de xam naa ni comprendre de ah. da ngay sol may bi def ko sol danga ko fi lii noonu lan la la nga ni maane maane numéro 10 la wa yow li la jàpp bàyyi ko ba léegi kooku doomi bambali la nga ni xoole man man naa a Mohamed Ala ñëw Mohamed Salah ñëw fi de. xoolal maa ne wala man na. ah xoolal yow Sadio ku baax

ay waay kon li koy sol yëpp may ba juuti ne dama mu ngi xeeñ sax li nga xam ne mooy yoxus ay waay am na lu ma naqari lool lool lool lan moo indi may xoolal ko ma ne ma man xanaa nga bëgg ma rek tabax ko waxel waay wuy ay wuy moom la e. wuy maa ne wuy moo ne man de way ay yooyu ay diis na ci sama mbagg yi ah? ne sama xol bi moo tuuti mënu ma ko supporté wooy yooy bu la ko dolli ah, way ay yooyu waaw waaw bombali ñu bomb ma bombali ñu bomb ma oui naka jekk masal ko muy xeeñ diwtiir lay na mayo kaasi na si la bu doon xeeñ tàndar ma sax ma ne ñun la yéy sama xol bi moo tuuti mënuma ko supporter xol bu ndaw lay yor wuy moo may rey